am contentement ak mbégte ñëw fii tey di janoo taskatu xibaar yi pour jox leen message message bi leen di jox na message bu jàmm la message bu salaam la message la boo xam ne daanaka ñëpp xam nañ ne lu gëtt ni jonn mooy élection locale yi ñu jëm élection locale yi nag dañu jàpp ne incha allah 23 janvier 2022 la donc yegg na ba noppi ñun nag ñi nga xamante ne kii ñooy kuréel bi tudd les élus de principe et de valeur ñuy fukki conseillers ak juróom-ñett nekkoon ci conseil municipal bi am na ceeb le maire bi liggéey bi booloo amee maanaam dawal nañu benn at ñaari at ñetti at ci la dogoo commencé am suñu biir ak maire loolu nag ñu ngi ko acté en 2018 2018 ba léegi ñu ne maire bi neexoo tuñu li waral neexoo tuñu mooy ñun bi ñuy dugg conseil municipal bi. ñuy toog ci table bi daanaka ñu ngi ëpp ñoo maire bi ñoo bokkoon liste bokk parti politique mais dem nañu ànd ak moom xam na fu mu jëmale Médina du yoon bu baax ñu wàññeeku pour wax ak askanu Médina bi ñuy wax ak askanu Médina nag dañoo tàmbali ci penc yi wër nañu maanaam fukk juróom-benni penc yoo xam ne moom la Médina am ñu mujjee seen siège daal di defar teg ñoom réunion dignitaire yëpp toog ñi mag ñi ngànk Médina ñu xamal leen ne leen orientation ñu maire bi am ak fa mu jëmale maire yi baaxul te kon génn nañ jë taxaw nañu pour seetal lu gën ci Médina biñ ci jógee dañuy dem seet tous les responsables politiques waxtaan ak ñoom ba ñu waxtaan ak ñoom dañ leen xamal ne leen bi ni may doxee baaxul li ko waral mooy période Covid bi ñëpp seetaan nañ ne xew Médina ñun ñi nga xam ne ñooy 18 conseils dañu def ay condamnation def nañ ci lu mat ñett ba préfet jox ñu dëgg daal di gàntal liggéeyu maire kon maire bi li mu doon def jugul donc tey ñun population yi am na contrat ak ay délibération yoo xam ne maire bi da ko def jaarul yoon ñu def recours en annulation annulé ko ba tey moo waral depuis boobu maire bi doxatul li tax maire bi doxatul mooy maire boo xam ne toog na neuf mois voté wul conseil municipal kon xam na ne jugul dëggul nekkul ci lu jub nekkul ci lu baax ndax amul benn mairie boo xamante ne tey mu ngi toog 9 mois woo sa conseiller presque 10 mois lay mat léegi ku toog atum yàlla woo conseil municipal bi lan nga liggéeyal nit na donc c' est la question qu'il faut se poser kon tey ñu xam ne tey fii ñu nekk nii tey Médina li yàqu-yàqu yi ñoo bëri énuméré nañ ko toj nañu jàpp yi ñu naan mairie bi la du mairie bi Bamba Fall la toj nañu def nañu kant jàkk yi def ko ay cantine mu naqaru waa Medina yëpp ñu toj école publique yi toilette publique yi Medina yi nii kenn amatul foo jaar léegi pour nga tuur ndox wala pour nga suburlu da ngay sonn dugg ci kër yi te jamono neexatul donc loolu yëpp ñun élus yi ñu xeex moom ëlbateeku mu jël terrain Jaraaf bi nga xam ne xale yi kese ñoo ci doon football muy benn terrain ci Médina mu jël ko jox ko promoteur jaay ko ñu taxaw xee defar daj moom ba xale Médina yëpp génn daan na lii mun fi am donc yooyu yëpp amee tey loolu moo waral ñun ñu taxaw tey ban homme politique moo waral mën indi le renouveau à la Médina ñu waxtaan suñu biir depuis un mois ñun on connaissait pas Cheikh Ba xamoon nañ ko rek parce que leader politique la mais nag ay waxtaan yoo xam ne ci weer bii lañ ko tàmbali mu invité ñu ci plateforme bi waxtaan wi ñu wax ñu wax ñu convaincant ci la ñu xamee ne donc la ci la di ci la ci la ñu daal di ci la ñu daal di waxtaan ak moom pour préparer taxawal loo xamante ne Médina yëpp bu boobaa nag dinañ ci ànd ak xale yi ànd ceeg mag ñi ànd ceeg ndaw ñi parti politique yi ànd ceeg opposition ci la ñu xamee la clé du changement à la Médina c'est avec Cheikh Ba.